salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal kenn ku nekk ak foo mën a nekk ci senegal ak foo mën a nekk ci Afrique te ngay foo mën a ne ci diaspora bi ñoo ngi lay nuyu di la jaajafal euh, ñu ñëw nag seet ci sëñ bi di Gaston Mbengue ginnaaw wax jooju nga xam ne waxoon na ko te mu yëkkati tuuti coow xaw a ñagasal xelu ñenn ñi ñu jàppoon ne wax yi bon la. jàpp na lu mu waru la wax la ñu jàpp na waxu waasoo la ñu ñëw seet si ko rek moom am na lu muy leeral ndax Sénégal bu amee fu mu toll baax na tamit ñu dellu ci wax ndax ci wax lañuy ñuy yàqee waaye wax la ñuy mën a defaree yenn yi sëñ bi Gaston ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal ñu bàyyi la nga nuyoog Sénégalais yi ak mbokku internetu Sénégal. jërëjëf Kandé comme ni ko waxee maa ngi nuyu Sénégalais yëpp leen nuyu yéen waa Sénégal yëpp di leen nuyu di la remercier ci li ngay faral di def c'est-à-dire di delloo si xel yi di leeral ay information parce que léeg-léeg information dem ba lëndëm ci xelu nit ñi mais yow doo sonn keroog bi ma jëkkee wax ci Walfadjri yi mu génn coow li commencé bari yaa jëkk a ñëw ma leeral tey bi ma waxaat delloo waxaat ci Walfadjri yaa njëkk a ñëwaat <laughs> donc euh, loolu loolu mooy professionalisme mais toog di critiquer di def ay analyse yoo xam ni euh, c'est contre nature loolu baaxul c'est même pas du journalisme mm-hmm. donc comme ni nga ko waxee euh, wax ji réew mi yëngatu woon na mm-hmm. wax ji bari woon na te yàlla xam na ni man fa ma doon waxee ak interprétation yi doon benn la preuve wax ji mas naa ci kaf sax ba wax ko deux ans il y a deux ans mais Bart mësu ko jëlee neen Bart sax fu ma gis daf may considéré comme nijaayam comme kilifaam respect la ma jox jox ko Aminata Mbengue nga xam ni nee na mooy yaayam yaayam même soo ko posé question ci affaire bu politique ay parti social bu la duma ci wax ndax sama yaay Aminata Mbengue ne serait-ce que pour sax waruma manquer de respect Bart ñii nee nañu njuumte la ñii nee nu waroo ko woon a wax et tout ça lu ñu wax rek concevoir na ko. mais man ci sama bopp en âme et conscience xam naa ni euh, nin ko gi nin ko tase. ak nin ko gisee ni perception bi ci yàqkat yi parce que ay yàqkat dañ ci am parce que dafa am ñoo xam ne ils étaient en perte de vitesse ay politiciens yoo xam ne c'est des politiciens périmés ñoo mujjoon a jël affaire bi nii bon kuu nañ ci profito nañ ci profito fustiger régime bi nañ ci profito wax lu la neex Macky Sall nañ ko nañ ci profito comme Gaston daf noo lakkal ci plateau télé yi nañ ci profito pour détruire ko mais man nag neexumaa détruire neexumaa terrasser parce que je suis très sportif damay encaisser lépp fu wax jotee nag fa mu war a fa ma ko war a waxee ma wax ko fa hmm. mais en âme et yàlla xam ne ni na ma ko waxee humour la woon parce que man yàgg naa def sax ay euh, émission Sénégo mhm. lépp dama koy def affaire u kaf affaire parce que ay sénégalais lañu suñu ah, doomi ñooy sëy mhm. donc caaxaa ay caaxaan nëri la rek mhm. et puis wax sax bu xawee ñagas nopp bu koy dëgg moo war a gën a voilà mais man je ne suis pas fougueux comme ni certaines personnes certaines personnes yu ñuy def ci plateau télévision yi di wane fougue mel nii dafa am lu ñuy jaayante man yooyu nekkuma ci damay lépp sama lépp kaf la Gaston ku ko xam-xam ni ñaata nit laa jubóole ci Sénégal du ma fekkee histoire mhm. jubóole ñëpp bàkke nañ ma ko donc loolu am na ma ci euh, d'abord bi ma leen gërëmee ba pare ma gërëm aussi Walfadjri mhm. parce que tooñ nañ leen ci sax ndax dafa nañ nii ñoo dafa espérer ay complice lañu woon waaw euh, la dame Awa Diop Ndiaye une journaliste très correcte yàlla xam na ni xalaatul woon sax loolu mais yooyu yëpp ñu bëgg cee profité pour yàq moo tax vraiment maa ngi dellu di même féliciter la sénéral parce que def nañu seen liggéey. Mhm. suñu gisee dara lu jaaxal askan wi dañuy def seen liggéey ma accepté ko. Mhm. correct noonu. Mhm. li correct li ñu wax lu ils sont raisonnables c' vraiment su dee syndicat syndicaliste yu baax la. su ay journal journaliste yu baax la. parce que lépp dañ koy teg ci yoon. Mm-hmm. may invité sax kenn déggu ci ba léegi famille Barthélémy Diaz. oui la preuve parce que en réalité yow. oui tu ne t'en es pas pris a une ethnie. Ah, ah, ah, mais famille Diaz nga doon waxal wax d'une a ñoo leen ëpp grandeur. Mm-hmm. famille Diaz nga doon waxal en réalité waxaloo ak ethnie yëpp yëpp yëpp. voilà mm-hmm. nga ne ci humour la woon woon. non une manière une boutade politique. ñoom ñi doon wax ñëpp sama grand Barthé euh, Jean Paul Diaz waxul sama xarit Barthélemy waxul mais ku nekk wax pour wut pour feeñ pour défouler wu pour dellu ci waat ci seen politique bi parce que ñoom ñëpp. parce que wax ji bu ñu ko joxuloon ampleur bu mu am kon du fi toll. non non non c'est vrai parce que boo déggee ay xalifa Sall vraiment sama rakk la. mais dama dangay waaru Khalifa Sall rép rép euh, ministre de la république su Diouf la xam na luy république su ma déggee l'ancien premier ministre laa nga xam ni moom vraiment euh, dama sax dégoûté Abdoul mbay di wax ay ak di génne ay conseil moom suñu ko waxalee mu noppi suñu ko waxalee rek mu noppi moom wala mu génn Sénégal na noppi moom warul sax di critiquer kenn honnêtement hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen am na sax ay jeunes marabu yoo xam ni dugal nañ leen ci yoo xam ne dangay ngay waaru di wax lu seen yoon nekkul heureusement que euh, sëriñ su bëri comprendre nañu xam nanu te ay defarkat lañu. même sunu gisee ku juum sax danañu jéem a defar ay association gis naa leen fii bu ñoom Modou Bara Dolly yooyu dégg naa leen tey suba ñu wax wax ju rafet téléphoné nan ma sax waroon na ñëw pour dox jàmm mm-hmm. mais dama ni leen jàmm am na jaru ko dem naa fa ma waxee woon waxaat naa jéggalu naa Sénégalais yi parce que dama ay mbokk am ay xarit ñu bokk ci Sénégal te ñëpp xam na ni Gaston li muy metti metti metti ni du jàmm la dafa jot sax gis nga wax ji dañoo war a jàngal lu bari ñun fii ci Sénégal kon kenn ku nekk ak foo mënta bokk ak koo mën a doon ngay responsable parti politique ngay porteur de voix comme Gaston Mbengue nga nekk ci kujje gi walla ci pouvoir bi jot na nit ñi di bàyyi xel lu ñuy wax ak nu ñu koy waxee. mais parce que wax ju ñaaw mën na jur lu ne. mais mais Kandé. Hmm. cest à wax sax mën na génn. Hmm. mais ay régulateurs dañoo a toog di jéem a di jéem a defar. bañ a enflammé mais di enflammé. di jël pétrole di ko sotti ci kaddu goo xam ne wa mënoon na bañ a yegg ci yenn niveau yi wax loo xam wax ci ñu ciy wax yëpp. yan yi man ji koy naa feq sax laa ko teg. parce que li ñu war a wax ñoom bari na. Hmm. te ko. li ñuy dégg ci plateau télévision yi li ñuy dégg ci télévision. te ñaawluwuñu ko te ñaawluwuñu ko. Hmm. Gaston Mbengue xosi bi mu xosi rek xosi dóoru sax dafa xosi rek ñu bëgg a ñëw taal ci dëkk bi bëgg a ñëw wax. Hmm. Gaston Mbengue su waree dee day dee ko un meurt fois. benn la que l'indignation ne soit pas sélective. waay voilà bu mu choisir benn nit rek mais képp koo xam ne. ak foo mënta bokk boo waxee loo xam ne dafay xaw a déborder rek nañ la wax ne bàyyi man du ma si waruma nekk seen cible mhm. ñoom ay opposant lañu pouvoir am fi pouvoir bi faalewu leen bu nu ko jaarale ci man bu nu tooñit le président Macky Sall encore une fois mhm. président Macky Sall calculé wul sax lu may def yëgu ko tinu ko tàgguwuma ko président Macky Sall parce que dañu ñu bëri dañu jàpp ne Gaston bu muy wax lii président Macky Sall pouvoir bi ñoo nekk ci ginnaawam. pour contourner wax ji ci mbirum Djibril Ngom. créer benn débat waxu premier ministre bi ak yu mel parce que quand même bu mu amee kenn waxatul wax yooyu Gaston rek la wax. parce que xamul euh, parce que xamuñu président Macky Sall. ok dañ ko xamul toujours ñu sosal ko toujours ñu waxal ko loo xam ne nekkul nan dal man président Macky Sall du woo mukk di ma wax defal lii wala may def leen mu ci dugg. Hmm. loolu du rôle am bokkul sax ci yooyu ñoom suñu amee seen beneen xeex nañ ko xeex suñu bëggee défendre seen i parti bëgg bëgg euh, xeex ak nguur gi nañ ko xeex ay idées mm-hmm. mais pas violence ak di sos ak di jéem a euh, guddal jël di jéem a yàq nit di jéem a jaxase ay nit génn nañ fi lu ne Jean Paul Diaz xaritu Macky Sall la mm-hmm. ñoo bokk fu ñuy liggéey de. ñoo bokk mais xaritam la sax. da ko jàppale ci euh, avènement Macky Sall. Mm. ñoo nekk ndoon PDS Ablaye Wade uufandoo leen mais réew mi c'est ça ana Abdou Diouf politique na fekk lay Wade defante nañ fi ab def na fi mu ne Ablaye Wade keroog bi mu faloo Abdou juuf la jël envoyé ko en mission dellu si ñu nekk ay xarit Ablaye Wade jóge Touba jaar Louga ci sa mbàjjen ku dem. Mm-hmm. loolu mooy Sénégal loolu mooy Sénégal Macky Sall man gisaluma ko si man bokk laa wax gisaluma ko si moom laa faral. nit ku ne am nga euh, droit faral kenn. waaw c'est c'est c'est humain. waaw du ma def loo dara loo xam ni day. day yàq day andi waaso. day boobu sax bëgg ba sax ñu koy tudd. Hmm. parce que. suñ koy tudd day mel ni dafa amoon. waaw te am te nit ñi. Mm-hmm. ñoo transformé waxu Gaston. interprétation léeg-léeg ci tout le temps moom Sénégal. ci mm-hmm. seet bokk journaliste yeeg euh, bokk politicien yeeg. waaw ñëpp taw yi wax. ba dañuy wax wax wax. taw yi wax damu toll foo am war foo bëgg yàq te nag <laughs> yàlla rek a fi nekk ku yàlla dimbale fi nekk man Gaston Mbengue mi ñoom ñëpp nag nan bu boo ñu déchanté kenn mënu ma jee euh, yàqal dara kenn mënu ma cee perturbé. lii ma def nii acte de grandeur moo tax ma def ko parce que. c'est nit ñu baax ñi ñoom El Hadj mbay Mbaye. Mm. ñoom Modou Sylla bu Grand Yoff ñëpp war nañ ma samay mbokk ku ne woote di wax mais li ñëpp wax muy dëgg. Mm. même su fekkee ni yàq nañu seen xel yàq na nañu xelu Sénégalais yi ay nit ñoo xam ni ay nit ñu bon ñëw nañu yàq xelu senegal yi ba say mbokk jaaxle say xarit jaaxle da ngay dem nga def li ci gën a gaaw. mu jeex ak de grande. waay waay xam wan leen ni. Barth mm-hmm. man mii lay sama doom. voilà Barth doomu Aminata Mbengue Ndiaye. Mm-hmm. Barth Jean Paul Diaz saa yu ma ne ci président su ma dajeeg moom ci couloir yi. de respect la may jox ma jox ko respect ma gis estime bi mu am ci man. Mm-hmm. donc de grâce Sénégalais yi bàyyi leen di jéem a di di euh, sotti essence di taal di yàq. loolu jëlewu fi Macky Sall de. Macky yàlla boo ko fiy jëlee. <laughs> loolu falu fi keneen de yàlla mooy fal keneen. donc may gërëm ñëpp di gërëm sénégalais yëpp. wax ji di gërëm samay mbokk. di gërëm samay xarit di gërëm affaire bi ñi mu naqari woon dëkk bu ne muy Kaolack Ndar partout bokkal samay fu Casamance ñëpp a doon yi ndax am lu lu leen naqari parce que am na nit ñoo xam ne dañ ma sopp ci yeneen domaine xëy na làmb jee tax ñu sopp ma am na ñoo xam ni xëy na dañuy wax Gaston dafa dëggu tel tel tel parce que je ne veux pas négatif. je veux être mhm. positif. non rafet na li nga def nii sax acte de grandeur la. Mhm. ñoo ngi lay jaajëfal yàlla sàmm la sàmm Sénégal. musal ñu ci musiba musal ñu ci nit ñu bon musal ñu ci jikko yu bon musal ñu ci xalaat yu bon musal ñu ci jëf ju bon musal ñu ci musal ñu it ci presse bu bon ci <laughs> amul <laughs> ak politiciens yu musal ñu ci journaliste yu bon waaw ak waaye presse bu bon moom amul journaliste ak politiciens yu bon <laughs> waaw ak en tout yal na yàlla aar Sénégal li nga def nii c'est c'est magnifique parce que tamit bu ñu demee ba xeli ñaaw baax na sax kenn ku nekk nga génn ci sa ci sa grandeur nga génn ci sa folie génn ci say ego jéem a wàcc tuuti andi wax waxu jàmm ndax Sénégal fii dara xëy ñu fi du dul jàmm. vraiment tey ñu ñoo bokk jàmm ma ciy remercier nag ñu bëri même seen mbokk journaliste ku mel ni. Assane Gueye bu RFM. Hmm. woo na ma démb wax wax yu rafet am na ñu bëri ñoo xam ni ay yeneen journaliste ku mel ni même Bougane Gueye Dany. Hmm. ñoom Pape Diogay Faye bu Direct News. nit ñi dañuy emporté wu rek parfois alors que mënoon nga woote sax. comprendre euh, xam li may wax nii vraiment na ko na nga ko parce que nit su la defalee lu baax da koy wax feeñal ko pour mu jox exemple ñeneen mm, mm. merci beaucoup ñoo ngi lay jaajëfal yow it yàlla bàyyi la fi ba ci kanam parce que après tout tamit sa wax na fi njëriñ surtout sama soxna yi sama doom yi sama jarbaat yi ñëpp ñu teg leen coono fan yi naqar di leen naqar naqar parce que kenn bëggul dégg sa jëkkër wala sa papa wala sa nijaay wala sa maam ñuy wax ci moom ñuy wax ci moom ca wax joo xam ne du dëgg mm. man su doon dëgg dafa koy assumé mm. man damay assumer dëgg. Mm. mais nag taxaw rek ni tey naa xeex dégg naa ay journalistes yu wax lu rafet dégg naa ay analyse léegi rek euh, yaa ngi may nettali lu euh, Mansour Diop bu euh, analyse bu rafet bi mu def fële Zik FM. Mm. ñeneen ak ñeneen mais la Sénégal noonu la nit ñi nañuy analyser lu baax xam ni ñëpp ay Sénégalais la. donc ñooñ ñëpp ñoom Mansour ñooñu ñëpp maa ngi leen di remercier vraiment euh, di remercier aussi encore une fois Walfadjri hmm. ndax attaqué nañ leen ci avertir na leen ci yàlla xam na ni ñoom du ci dara c'est ils sont sont des professionnels. Hmm. am na moo tax tey boo ma ñëw it dañ ma accueillir hmm. ci biir bureau directeur bi Cheikh sama doom ñu toog waxtaanee lépp. naan la Moustapha Diop euh, ak Moustapha Diop directeur <laughs> ñoom ñëpp vraiment traité ko aussi. comme il faut donc je les remercie comme ni ma leen di remercier yéen waa Sénégal. merci beaucoup ba beneen yoon. merci ci beneen thème. merci du doon nag te mu en tout cas defaraat. du doon thème polémique xam naa xam naa nag défendre président Macky Sall moom pare pare goo ci. non non non du ma ci pare ci àddina <laughs> tant que mi ngi fi tant que yàlla nga ko fi bàyyi. du ma ci pare tant gaa yaa koy nag attends euh, su ma nee dama ci dama koy bàyyi ëllëg man ngeen maa waar. waaw te waar lay bañ. waaw te nag ñii mu seqal langue politique yi daf ci am ñoo xam kenn mënul leen a bàyyi noonu. ndax soo leen bàyyee noonu ñu ñu tas dëkk bi. Mm. te du ko jar. donc il faut ñu am. ñu am ñun. ay bouclier euh, ay bouclier voilà. Mm. il faut que ñu am ko. damay invité aussi les gars ni ma koy faral di defee toujours. les gens de la l'APR. une sorte de ñi nga xam ni Macky Sall moo leen teg fi ñu teg lu nekk tey Macky Sall la. Mm. de grâce na ñuy génn. di vulgariser lu président Macky Sall def ci lu baax di def ak di ko ak di défendre. parce que mënuñu bàyyee. ay xale nekk ci plateau ay politiciens euh, d'hier yoo xam ne démb rek lañu taxaw bëgg a raatale réew mi bëgg ubale réew mi dégg nga pour loo xam ne day yàq réew mi. Mm-hmm. te ñoom ñu taxaw ko ci ne tëju sa ne kenn ñi mu la génn sax riposter wala nga def réplique. Mm-hmm. parce que ñaañu sont de c'est de bonne guerre. Mm-hmm. l'opposition c'est de bonne guerre dañuy suñu gisul kenn suñu gisul kenn ci terrain bi dañuy football ñoom rek di dugal. waaw bii bii bu ñëw ñu dugal ko parce que gisuñu défenseur ci terrain bi. Mm-hmm. <laughs> donc il faut qu'il y ait une bonne défense aux côtés euh, du régime de Benno Yaakaar benn Bokk Yaakaar. Mm-hmm. di tuddee sa bopp benn Bokk Yaakaar ak APR ci kenn du la dégg kenn du la gis dégg nga maam euh, loolu dafa yomb trop. <laughs> jàppale nañu président Macky Sall nañu ko nañu ko jàppale. <laughs> nañu ko jàppale ça c'est vrai merci beaucoup. ba beneen yoon incha allahu rabbi. jërëjëf jërë ngeen jëf.